peñu ma saar ñett bindal malaakam mbooloom ñi gëm ci dëkku sàrd ne ko ki yor juróom ñaari xeli yàlla yi ak juróom ñaari biddiw yi nee na xam naa say jëf dañu la teg kuy dund fekk dee nga yeewul te dëgëral li des ci yow tey waaja dee ndaxte gis naa ni say jëf matunu ca sama kanam yàlla fàttalikul kon kàddug yàlla gi nga jot te dégg ko sàmm ko te rëccu soo wee ci nelaw nag dinaa ñëw nib sàcc te doo xam wan waxtu lay doon moona am nga foofu ci sàdd nit ñu néew ñoo xam ne tilimaluñu seen mbubb ñooñu dinañu ànd ak man sol lu weex ndaxte yeyoo nañu ko ku daan dinga sol mbubb mu weex ni ñoom te duma far sa ci téereb dund bi waaye dinaa nangu ci sama kanamu baay ak ay malaakaam ne bokk nga ci man yow mi am ay nopp déglu li xelum yàlla di wax mboolooy ñi gëm malaakaam mbooloom ñi gëm ci dëkku filadelfi ne ko aji sell ji di aji dëgg ji nee na moo yor caabi daawuda ji moo miy tijji te kenn du ko mën a tëj muy tëj te kenn du ko mën a tijji nee na xam naa say jëf ubbil naa la bunt te kenn du ko mën a tëj xam naa ni bariwuloo doole waaye sàmm nga sama kàddu te weddiwoo ma dinaa def ba ñenn ci ñi bokk ci ndajeem seytaane te tuddoo yëwut fekk dañuy fenn dinaa leen ñëwloo ñu sukk ci sa kanam nangu ne bëgg naa la ginnaaw muñ nga ni ma la ko dénke woon man itam dinaa la yiir ci jamono ji musiba mi di wàcc ci duniyaa bépp ngir nattu waa àddina léegi ma ñëw sàmmal li nga yor ngir kenn bañ laa xañ sa kaalaak ndam ku daan dinaa la samp ni aw jënu néeg ci sama kër yàlla te doo fa génn mukk dinaa bind ci yow turu sama yàlla ak turu dëkku sama yàlla mu di yerusalem gu bees giy jóge ca asamaan ca wetu sama yàlla di wàcc dinaa bindit ci yow sama tuur wu bees yow mi am ay nopp déglul li xelum yàlla di wax mboolooy ñi gëm bindal malaakaam mbooloom ñi gëm ci dëkku lawdise ne ko ki ñuy wax amiin ji di seede bu takku bi te dëggu ki di ndeyi bindu fi yàlla yi nee na xam naa say jëf xam ne seddoo tàngoo mënoon nga sedd mbaa nga tàng waaye ndax li nga nugg tàngoo seddoo dinaa la yàbbi yaa ngi damu naan am naa alal duunle naa soxlaatuma dara fekk xamuloo ni torox nga miskiin ñàkk gumba rafle moo tax maa ngi lay xiirtal nga jënd ci man wurus wu ñu xellee ci safara ngir nga doonle te nga jënd yére yu weex ngir nga solu ba sa gàcceg rafle bañ a feeñ ak tuufaay booy diw ci say bët ngir mën a gis man maay yedd di yar ñépp ñi ma bëgg farlul kon tey tuub say bàkkaar maa ngi nii taxaw ci bunt bi di fëgg ku dégg sama baat te ubbi bunt bi dinaa dugg reerandoo ak moom moom it mu reerandoo ak man ku daan dinaa la togloo ci sama wet ci sama gàngune ni ma xeexe ba daan man ci sama bopp te toggandoo ak sama baay ci gànguneem yow mi am ay nopp déglu li xelum yàlla di wax mboolooy ñi gëm